alaaji Moustapha Gueye xam naa nag xale yi nga xam ne ñoo nekk génération bi duñ ko xam bu baax waaye suñu papa yi nga xam ne yàgg nañ dem màkk ca génération 2000 ba 2005 2006 mooy alaaji Moustapha Gueye borom yàlla rek a xam te nekkoon ki nga xam ne nag moom mooy oustaz bu mag bi ca RTS njëkk def waaraate yi sénégalais ko seetaan nekkoon commissariat bu pèlerinage moom ci boppam wolu nañ ko ca pale ba lan la fay wuyoo nañu ko seeti moom ki nga xam ne mooy alaaji Moustapha Gueye ci programme boobu allo madame secrétaire waaw gë euh, gën googu nekk si centre d'attente bi dugal ko waaw mun naa ñëw waaw allez merci beaucoup. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah. ah Alaaji Moustapha Guèye. waaw euh, euh, sant ba. fay fay fay fay Guèye na nga def Guèye. fay fay fay. maa ngi lay ziar Guèye. alhamdulilah fay ñu ngi sant bu baax jàmm rek fay. sant rek Guèye. alhamdulilah fay. naka njaboot gi jàmm rek ñu ngi sant bu wér fay. barikalla Guèye. alhamdulilah. naka yaram bi. na nga def. ñu ngi sant bu baax fay fay fay. alhamdulilah yow de ab fayeen nga. waaw fayeen nga <laughs> ab fayeen nga dama foogoon ne ab jaween nga sax nga xam nga géyéneen yeeg jaween yi du ñu baalante waaye yàlla rek moo xam yàlla rek a xam na nga def nag fay ñu ngi sant bu baax alhamdulilah alhamdulilah fay ñu ngi sant bu wér alhamdulilah fay alhamdulilah ah, waaw man dama jógee jumaa ji rek xale yi woo ma dama mhm. alaaji Moustapha ma ne ñu ne ma am nga fi enveloppe bu jógee présidence moo tax ma dagg lépp daal di ñëw alhamdulilah fay fay parce que président sax. moom moo la wóolu woon. jaarale ko ci man. Ah, ndax euh, gis nañ li nga liggéey ci diine ji. ok wallay wallay. depuis bi Sénégal nekk Sénégal ba léegi. <laughs> yàgg nga def ay émission yoo xam ne. Mhm. di waaraate. Mhm. di delloo si nit ñi ci yàlla wallay wallay. te nit ku dëggu nga it. wallay wallay ku nit ñi naw nga. kay jërëjëf bien vrai sax gisatuñu lu bëree bëri si plateau télé yeeg jërëjëf fay. mais gën loo ci xel yi. xam nga yàlla mooy dogal. Mhm. ndax man jiite naa woon commission bi yàgg na. waaye di ma ko jiitee ba toppatoo ko ba ma koy bàyyi wax dëgg yàlla ni ma ko jëlee woon noonu laa ko joxe waate yàlla rek a xam yàlla moom yàlla rek a xam yàlla rek a xam bu ko yàlla tegaatee sama loxo ma xam ne yàlla ma ko jox bu ko yàlla tegul sama loxo ma xam ne yàlla rek ma ko jox ndax yàlla rek a xam jërëjëf moo tax président daal vraiment dina la jukkal ndax dafa am lu muy waajee sumb waaye tax na mu génn benn chèque bu 15 millions <laughs> waaw chèque bi daal vraiment mi ngi nii 15 millions moo si nekk <laughs> ah. waaw ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah li de wax dëgg yàlla lu baax la parce que boo nekkee ci réew di liggéey ba jël sa alal bi nga moom di ko maye wax dëgg yàlla te mu leew la dom lekk ko aayul lekk ko aayul waaye xam nga rek moom eh, nguur bu bu la bu la jox ñu bëri dañ koy gisee beneen bët waaye yàlla xam na ne ne dëgg yàlla de lii rafetlu nañ ko ndax ulama yëpp dinaa ci waxtaan ak ñoom ne la nag lii nga xam ne moom la Macky Sall def jëmale ko ci man dafa mel ne defe na ko ulama yëpp te ulama yëpp ñoo bokk benn kàddu dëgg yàlla maa ngi koy rafetlu bubaax baax léegi sa signature lañ soxla ah, naa ko signé arab de arab lay mu ne ko arab di lay signé lay di Moustapha Guèye lay di Moustapha Guèye bëgg Makka lay di Moustapha Guèye bëgg Makka ko allah gi Makka léegi nag euh, damay woo ki nga xamante ne bii mooy le ministre Mankeur Ndiaye moom nga xam ne mooy yor wàllu affaire étrangère. waaw waaw doom doom dëgguma la. Mhm. xam nga mag bu nekk mag la. Mhm. waaye damay damay dama bëgg a sàcc suñu lanc. Mhm. mbaa du dañ ma bëgg a def commissariat pèlerinage nag bii rek wax ma ko ma. balaa mu may attaqué. non xam naa ne nag lii moom. lii moom mooy gën a sax forloo. <laughs> ah alhamdulilah. waaw ndax comme mi nga du n'est-ce pas mi nga yor. man makk rek laa xam. man xaw ma leneen lu dul makk. yàlla xam na ko yàlla rek a xam waaye li nekk sama xol boo ko ibbi woon màkk nga ciy fekk moo tax gis nga bu ñu nangoo commission bi sama loxo joxe ko dama toog rek xam ne yàlla rek a xam waaye doom bu fekkee ne loolu tax président woo ma kii wax dëgg yàlla kon dinaa la ñaanal yow fi nga toog nii yàlla defal la place bu kawe si jot comme miin nga foofu rek baax na <laughs> bu baax bu baax man rek maa ko xam man rek maa xam màkk diggante màkk ak yaxut yeeg foofu yoon boobu xam naa monsieur le ministre Mande waaw ah, monsieur Faye bonjour waaw bonjour vous allez bien ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah ça va bien. merci. Euh, je suis dans mon bureau avec El Hadj Moustapha Gueye. ah ok ok d' remettre naa ko la somme de 15 millions. ah d' accord il a fait son décharge. décharge na waaw décharge na ba pare signé ma pare. ok d' accord. voilà léegi passe ma ko ministre Maguette. ah oui kay yow lay yow lay allo salaamaaleykum allo Ndiaye Ndiaye Ndiaye. ah Guèye jërëjëf Manquer. Guèye Guèye ñu ngi lay nuyu bu baax parce que démb maa ngi nekkoon ci conférence. Ah, ah, ah, maa ngi la seen. jërëjëf waaye xam nga boo toogee ci table bi doo mën a ku ne nga jox ko loxo. ah dëgg la dëgg la day xat. waaw El Hadj Moustapha Guèye Guèye day xat Guèye nga xam ne wax dëgg yàlla. ba saa waay teeru na la bu baax rek. waaw waaw waaw wax dëgg yàlla nee naa ko kay affaire étrangère kay dama ko miim. au fait ndax bi fi mhm. bi fi euh, euh, euh, Abdoulaye Wade nekkee. xam nga mhm. maa ngi nekkoon commissaire pèlerinage. Mhm. waaw ay pexe rek moo tax ñu jël ko sama loxo ma ma xam màkk nag bu baax nag. noonu la noonu la <laughs> ma xam màkk bu baax. xam nga yéen moom da ngeen am solo lool ci réew mi. wallay wallay wallay. di ñaan sunu borom saxal leen si. amiin yaa rabbal alamin ndax lépp luy diine yéen koy doxal. waaw waaw waaw kay. yéen ngi yee nit ñi ci wàllu ngeen féete. ok loolu taxoon na suñ président. waaw xam yow euh, miin nga yoonu Arabie Saoudite bi bu baax bu baax Ndiaye. dëkk naar yi miin nga ko lool bu baax. gis nga bi ma yoree commission bi wallahi am naa ay xarit yoo xam ne ña nga ca Istanbul ña nga ca dëkk bi nga xam ne sax tey fan yi moo nekk ci guerre bi di Yémen foofu yëpp ay xarit laa fa am makkari ak li ko wër yëpp laa xam ba tax na ba tax na ba li ko ci gën a neex sax mooy que seen langage arabe dafa set yéen moo tax it gis nga commission bii nii mhm. xaw ma la ngeen may doyee de waaye wër na yàlla ne yenent bi mhm. relation yi ma ci amoon ay Abdel Bakar sama xarit la mhm. Mohamed Al Bachir bi nekk foofu commission euh, euh, pèlerinage mondial sama mm-hmm. xarit la yàlla rek moo xam lu tax ma ñàkk place bi waaye yàlla rek xam na ne màkk rek laa xam dëgg la côté boobu moom miin nga ko lool lool lool bu baax kay ba tax na daal mu tegoon vol spécial waaw pour nga ànd ak cent deux cent deux mille cent soldats waroon na dem yaa rabbal alamin ay waay nekk naa commissaire ma ànd ak pèlerin yi attends xaaral xaaral sëñ Moustapha waaw boo xaaral xaaral xaaral daf ne waaw ma ci daf ne deux mille cent soldats yi war a dem Yémen waaw yow sa arab set na te lépp lu mu fa bëggoon a xam ci renseignement di nga ko ko mën a jox ndax yow yaa yor euh, commission pèlerinage bu nekk Sénégal léegi dafa buggoon nga ànd ak ñoom euh, dem Yémen. maa ko war a yor wala maa yow yaa koy yor yow yaa. <laughs> yow yaa di diriger yaay diriger soldats yi war a dem Yémen. mu ne mu mu ne la dafa bëggoon nga ànd ak soldats yi war a dem Yémen 2100 yi nga gunge leen lépp lum mu fa sox ci renseignement rek nga mën ko di ko ko jox. di ko ko envoyé dina la booleeg ay caméra yu baax sax nga mën faa defaale envoyé spécial alo sama diine lu leer la ma wax boo déggee loo xam ne neeru sa napp. wala lu yee na ma ne diine lu leer la wax nee na boo fekkee ne da ngay dégg lu yee fitna da ngay tudd suñu borom. déedéet dama dégg mu wax wax ju yéeme. walay walay walay naa fay julli. damaa dégg wax ju yéeme la wax damay jàpp julli l'islam a ko wax boo déggee lu la jaaxal moom ko sant tuddal suñu borom. mais alaaji alaaji wuyu ma je pense que expliqué na la bu a baax nan lay demee penku bi féete fii. dama am dama am boru ñaari at yu ma war a fay boru julli ñaari at yoo xam ne xeetu jaamu yàlla la moom laa bëgg a fay. waa léegi ma ne moom laa ko fu penk mu féete. non penku baa ngi nii. fii la féete. waaw nii la baax na xanaa ma taxawal julli ñaari at rek. waaw non attends. déedéet l'islam dafa wax ne boo déggee musiba. wala lu yee fitna tuddal suñu borom li ma dégg fitna la. xaaral xam nga te fitna kenn du ko yee. waaw yàlla rek a xam. mais gars yi déjà pare nañ fi mu ne nii da ngay xaar ñu ñëw jël la comme ça boo déggee ci avion bi mu doon neex mën nga julli foofu amul problème parce que fi nii mënuñu la bàyyi ngay julli presque man wàcc naa dix a xaar. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillah maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne da ngay yee fitna war a ngay yebal nit ci fitna goo xam ne bu fa demee bakkanam mun na faa des yàlla na fa des waa ji ko def ne la amin amin képp koo xam ne yaa ngi yebal ab mag boo xam ne amul kattan gi te amul mën-mën bi mu wóor na bu demee bakkanam daf fay des yàlla nga fa des xam nga doon na amin jàppal na ma yaay Moustapha Guèye man maay ki nga toog fii rek di nga xam fan la danger bi nekk yàlla rek a xam ñaari at sa ngi nii ma amel julli yu ma war a def dama koy fay du ma génn kër ga ñaari at képp ku la yéene yoonu yemen yal na fa yem neel amin non mais doo ko wax <laughs> yàlla rek xam. du question du ma mais man lay naxee commissaire xam na màkk moo nekk sama xol mu may yóbbu mel na ku may tiimale màkk jàdd yemen yàlla rek a xam tale la sa loxo ma ñaanal la. non mais képp koo xam ne yaa ngi may yéene yoonu yemen bëgg ma dem fa des fa yàlla nga fa des ne la amin. ah non yàlla rek a xam. mais man lay yéene yoon a yemen. mais si nga. waaye yàlla rek a xam tàllal sa loxo ma ñaanal la. non képp ku ma yéene yoonu yemen bëgg ma dem fa yem fa yàlla nga fa yem ne laa mi. doo ko mus a wax yàlla rek a xam. mais da nga encaissé chèque ba. ma ne dama ne képp ku ma yéene yoonu yemen yàlla boo koy xalaat balaa nga fay jóg waaye yemen dal sa kaw ne la amin. xam kon waroo maa woo yàlla rek a xam.